at bii nag ñu nekk ci ñaar fukkeek ñaar fukkeelu ak euh, juróom-ñeenteelu at biñ koy célébrer fii moo taxoon ñu woo service technique yi nga xam ne ñoo fi nekkal état ñu ñëw euh, waxtaan ak waa kuréel gi ñu xool nan lañ leen di jàppale ba nga xam ne organisation événement bi yomb ci ñoom day nekk ndaje boo xam ne ci nag ay junni euh, junni nit ñoo cay teew loolu nag comme fu mbooloo di daje la dafa soxla état aussi loo xam ni si daf ko sartonteel ak ay ndawam muy wàllu sécurité loolu tax na ñu woowoon service yëpp ñu ñëw ku ci nekk taxawaay ba nga xam ne ñu war ko taxaw nga ñëw euh, jox say engagement bi ñu ñëwee aussi comité bi partagé nañ seen i besoin ñu partagé seen i besoin aussi service bu ci nekk li nga xam ne moom la la état jox ci liggéey boo xam ne si nga war koo liggéey pour doomu aadama yi nga wax ne lii mën naa ko ci def yàlla suturaal nañu nag ba besoin yooyu nga xam ne wax nañ ko service technique yi fi nekkoon ñoom mën nañ ci indi saafara moo xam ci wàllu kaaraange la ndax gox yañ koy defee dafa nekk gox boo xam ne si dafa nekk diggante ñaari commune muy parcelle ak yoof loolu nekk zone yoo xam ne si gendarmerie dafay teew police dafay teew loolu dafa soxla aussi coordination police ak gendarmerie ak sapeur pompier boobu engagé wu nañ ne lépp luñ ci war a def te at bu jot ñu ko daan def danañu def lu ko raw ngir jàppale kuréel gi. beneen wàll bi comme dañu nekk ci jamono yi hivernage hivernage ñu euh, nekk ci weer woo xam ne si dafa nekk weer buy boo xam ne si taw bi day bari août ak septembre yëpp taw bi dañuy fa seetlu ne day bari loolu moo tax service yi nga xam ne ñoom ñooy yor wàllu euh, prévention ak aussi gestion yi moo xam ONAS la. ñoom ñëpp jël nañ ay engagement accompagner euh, comité bi ba nga xam ne matukaay yi ñu war a jël ndax site yooyu sax am na station de pompage mais ñoom nee nañ dinañ ko renforcer ak ay euh, moyens de pompage ngir kuréel gi duñ am benn jafe-jafe durant l'événement ci beneen wàll bi mooy euh, wàllu dem beeg dikk bi ndax bërëb buy dajale ci benn bés rek ay junni junni nit jar na ñu texaw benn teg benn plan de circulation boo xam ne si dina mën tax nit ñi mën a dem ak dikk te kenn du am gàllankoor loolu nag gendarmerie ak police dinañ def benn visite foofu noonu pour xool yan matuwaay lañ mën a jël ba nga xam ne kenn du am gàllankoor ci jour ba ñu ci nañ mën a dem dikk te duñ am benn jafe-jafe dinañ ci ànd ci liggéey boobu ak Ageroute mi nga xam ne déjà à une semaine de l'événement dinañ entretenir route yi nga xam ne tali yi nga xam ne ñoo ne foofu ci gox nit ñi man caa jaar ci anam yu mu gën a rafete euh, dañ fee teew tey ci turu Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy yi daara Hizbut Tarqiyyah ndax umpalewu leen ni daaw soxna Sooda Xuma la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jiital ci liggéey julli géej gi woo jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah jox ko ndigal ngir mu ànd ak moom liggéey boobu bu baax léegi nag ñu def benn comité ànd ci liggéey boobu euh, daaw ci waxtu wi defoon nañu CRD bu mel ni ñu di ci digg euh, nag bu baax gouverneur ndax xatoon na lool te ku ne gis na ni service yu bari seen diggante ak màggal gi ak jafe-jafe yi waaye terewul euh, ñu def ko euh, li nga xam ni itam moom la ñu sàkk woon daaw ren itam ñu sàkkuwaat ko euh, lu ci bari itam ñu ciy sant bu baax ndax daaw ni mu taxawee rafet na lool rawatina daaw muy bis boo xam ne jege na lool màggal gi diggam ak màggal gi daanaka indi semaine doxu ji te taxaw nañ ci ba liñ ci bëgg ñu am ko ren nag ginnaaw yàlla dogal na diggante bi lu mu néew néew xaw na jege fukki fan ak juróom ñuy séentu mbooloo moo xam ne dana raw mbooloo mu fa woon ndax sëñ yu Mbacke bi mu koy digle dafa ne woon nañ ko def bu Ndakaaru kon loolu gis nañ ne lu ñu gën di dox waa ndakaar di xam ne seen bis la di yëg ne seen bis la di ko gën a approprié loolu nag day tax mbooloo bi at mu ne day gën a yokk kon suñu xel dal na bu baax ci euh, engagement yi nga xamante ni chef de service yi jël nañ ko ak tam supervision gouverneur ndax wax dëgg yàlla daaw bu ñu fi taxawee liñ fi séentu woon lépp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 Tawfekh Production. ndax ah, lii am lépp tawfeer ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt tawfeer ci sëriñ bi.